bisimilah barki borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ñu bàyyi xel ci àddina bi ñoo ngi leen nuyu baax te di leen ziyaara di ci leen nuyu ak ziyaar bi Cheikh Amadou Mountakha mi fi nekk Cheikh yokk aw fanam yokk ak wéram di ñaan Cheikh Amadou Mokhtar nekk Cheikh Moustapha ni ko noonu noonu la ñaan tamit sëriñ Abdou Khadir xam moom nekk suñu door a sant suñu ma te wéral ko ba ak Cheikh Khadim mu mel ne ñoo ngi fii ci Touba Treviso ci Italie parce que def ndaje mi nga xam ne moom lañ baaxoo def at mu nekk muy assemblée générale boo xam ne waa jamaat dañuy bàyyi Cheikh Hassane Moustapha Tall ñoo koy amal ci ndigal gi fi nekkal sëñ ko defal niñ ko baaxoo defee ci njiital Baye ne moo jiite mbooloom sëñ Darou Hassane mi nekk Touba ngi toog nag ak ay mbokk taal yoo xam ne ci biir liggéey bi lañ bokk muy Serigne Cheikh Hassane Ndiaye ak Serigne Fallou Irada ñu fas yéene nag leeral programme bi nga xam ne moom lañ fas yéene doxe tey fii ci assemblée bi ci ay plateau yoo xam ne danañ ko fi amal incha allah xam naa dañu suñ siyaasa mu nuyoo bu may dem jox suñ fàll mu nuyoo xam ne moom fas yéene doxale kon suñ siyaasa ko jox la nga nuyoo ak mbokki taalibe ñu bismillah aousu billahi mina shaytaani rajim bismillahi jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm ak tawfeex te di ko sàkku ci yéen di ñaanal Cheikh ma Mountakha Al Bachir yàlla may ko mu yàgg fi lool te wér di ñaanal euh, njabootu sëñ Touba Mbacké yëpp rek di ñaanal sëñ Abdou Khadir Ndiaye euh, xalifa bu waa kër sëñ Daaru di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te wér ñaanal njabootu euh, sëriñ Daara Assane gi ñëpp rek di ñaanal sama sëriñ sëñ Mbacké Mariamou Ndiaye di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér xam naa di ziar bu baax a baax sëñ Mbacké mi ñu bokkal plateau bi ak sëriñ Fallou di leen jaajëfal baax a baax ci liggéey bam am solo bi ñuy def xam naa ñu nit dinañ ñëw ci ñaari euh, ponk rek ñaari euh, plateau yoo xam ne maa xëy ñun ñoo koy féetewoo muy li nga xam ne maanaam moo jëm ci wàllum tout tànk yi ñu war cee dalal ko ci mel ne Serigne Mbacke euh, Ndiaye te ñu gën a xam gën ko xam ci Serigne Thian ak Serigne seex Fat Sila Ndiaye xewal ñu gën ko xam ci Cheikh Cheikh xewal wala Talib Bamba xam naa bu ñu paree itam dinañ indi li nga xam ne maanaam mooy jotaayu soxna yi di ci war a dalal suñu soxna Ndoumbé Touré incha allah rek moom tamit mu ñëwoon ñu ci liggéeyub soxna yi xam naa ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xam naa di jox sëñ Fallou mu nuyoo moom tamit incha allah rek bu pare ñu doog a ñëw ci ponk yi nag bisimilah sëñ Fallou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi njabootu ko Serigne Darou Assane nahaykum tahiyatul muminin wa aqulu lakum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ñi nga amaan mbégte kontaan baax a baax a baax di siyaara mboolem koo xam si ni yaa ngi ñuy seetaan foo mën di nekk ñi ngi te di lay siyaare te te di lay baal àq di sàkku si nga jéggal ñu tabaal ñu àq si barkam Serigne Darou Sane noonu li ñaanale Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid ko fi loolu tamit ko wér di ko ñaanal Cheikh Ahmadou Mokhtar Mbacké ko fi loolu tamit ko wér noonu ko ñaanal Cheikh Moustapha Mohamed Taif ko fi loolu daana di Serigne Abdou Khadir xalifa Serigne Darou Sane borom subhanahu wa taala yàggal ko fi loolu tamay ko wér ak mboolem njabootu ko Serigne Darou Sane Ndiaye gépp di koy ñaanal jëwriñam Serigne Moustapha Fati ak mboolem ñi si ñoom la àndal liggéey bi porte parole bi Serigne Ibrahima Jëmmu Ndiaye ak mboolem ñi si ñoom ñoo jiite euh, liggéey bi foofu si Sénégal waaye tamit balay booba dañuy ñëw fii si Italie di jiital euh, si néew bi ak ziara bi sunu waajur sunu bàyyi bàyyi Talla Diop mi nga fédération boo xam si ne xëy na sëñ Modou dina si ñëw wax ñu ko lëkkalee ñu ko lëkkalee incha allah waaye tamit la jiitu loolu tamit di nuyu mboolem fédération bu Sénégal si njiital maam Dame Ndiaye mi xam moom moo jiite liggéey boobu ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko ziar tey mel ne sëñ ma dem ma Baye ma dem ak Kanté moom moo fi teewal suñu Baye Baye Talla Diop tey yoral ko fi kàddu gi di jëwriñam ngeen gis noonu xam si noonu lu ubbee liggéey bi d ab ubbi boo xam ne ubbi bu am solo waaye tamit lii ngeen gis di plateau bi ñu daan def ensemble général at mu jot ñu koy amalee euh, si ab dëkk tey jii nañu indi ko fii si Touba Treviso ngir fas yéene waxtaanee euh, seriñ daaro Assane ak mboolem loo xam si nii aju na si euh, liggéeyam Serigne Darou Assane bu ñuy waxtaanee Serigne Darou Assane nag comme ni ko suñ jëwriñ waxee léegi sëñ Assane ak sëñ Modou wax nañ ko la incha allah dina ñëw fii si plateau bi ngir dalal ay gan waaye tamit ngir waxtaan ak ñoom lépp loo xam ne dafa jëm si liggéey bi xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne Darou daaro Ndiaye di ab liggéey bu am di ab liggéey boo xam ne si tamit dañ ko fas yéene liggéey suñu jàmbaar ji Serigne Darou Assane Ndiaye noonu nañ ko fas yéenee doxalee incha allah si ay plateau waaye tamit noonu nañ ko fas yéenee doxalee ak yéen tamit fi nga xam si ni moom mooy si biir mbaar mi nga xam si fi lañ nekk di fay amalee waxtaan wi sa jamono ji ñuy wax mel ne sëñ Modou waxtaan wi sax commencé na. Mm, jërëjëf euh, Serigne Fallou jërëjëf Serigne Cheikh ci tijji bu am solo boobu comme ni ko sëñ Fallou Irada waxee rek mu mel ne ñoo ngi doon dégg sëñ Baalu Ndiaye xam ne mooy àddunoon ci wàllu waxtaan wi ci jaar-jaar yi ak dundu sëñ Doro Sane jàmbaar ju tedd ju màgg jooji comme niñ ko xamee rek comme plateau yi incha allah kon ci kanam dina commencé kon ni ko sëñ Cheikh Ndiaye waxee xam naa danañ fi dalal ñi nga xam ne ñoo yore bànqaasi liggéey bi muy tout temps ngeen sëñ Cheikh tudd na leen sànq xam ne ay ndaw la ñu am pasteef am pas-pas di ay kenn tamit ci li nga xam ñoo nekk Touba Italie incha allah danañ leen dalal fii ci seen liggéey ak seen i engagement ak seen i yitte yi nga xam nañ ko ci fédération Yacine bi nga xam ne moo nekk niki noonu tamit ci wàllu soxna Serigne Cheikh tudd na ko sànq muy soxna Ndoumaty Touré moo leen jiite ñoom incha dana leen liggéey ci at mi ak nañ ko ak soxna yi fi nekk it koo ne bëgg naa ànd ñoom liggéey boobu nan lay def ba mën caa tàbbi incha allah buñ jógee tamit ñi nga xam ne ñoo yore wàllu social ci daayira bi te xam ne mooy dëgg-dëgg euh, maanaam cosaanu daayira ndax sañ seen mbàggan bi mu ko sosee nañ ci social ngir di ci dimbaleen suñu biir ñi nga xam ñoo leen dalal fii ñu indi ñoom it seen liggéey ci at mi naka la tëddee ak naka la doxee ak ku ca bëgg a tàbbi tamit naka nga ca tàbbee incha allah bu ñu jógee tamit ñi nga xam ne ñoo wàllu finance te suñu njaay taay jiite ko te ku wax daayira wax ne dañuy daje ay ay koppar ñi nga xam ñoo ko dajaleel faaw ñu leen kon mbokk yi koppar yooyu naka lañ ko dajalee ak bu nga dajee par tamit ci lan lañ koy dugalaat ak naka lañ ko ci dugalaatee yooyu yëpp incha allah dinañ ko fas yéenee ànd ak ñoom ci jataay bi jàngat ko ku ne xam ne tamit ci ay weer yu wees ci gannaaw ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ci njiital Sëñ Abdou Khadir Ndiaye am na laas mu defoon boo xam ne dañu ko tuddoon jaayante ngir fas yéene àggale leen ay liggéey si doon yoo ne mi ngi Touba. ni ki noonu tamit am na ay liggéeyoon ñoom indiwaat nañ ko ndigalu xalifa bi ñoom it dinañ dalal fii ndaw yooyu ñu leer ñu jaayante boobee ku ca bëgg a jaayante nan ngay def ba jaayante ca ak jaayante boobee la mooy sabab bi ak lan lañ ca war a liggéey naa jaayante boobee loolu tamit incha allah danañ ci ànd ak ay magi taalibe ci biir pare bu neex suba incha allah ak kayit sëñ Saliou Ndiaye moom xam naa dinañ ko dara moom it mu gën ñoo andil tamit taarix Sëñ Darou Assane ci jaar-jaaram ci dundam njëkk sëriñ bi ak bi sëriñ bi ñëwee ak it ni nga xam noonu la àndee awoon ak moom ba ci ak mu jëm ak leen ci ay xalifaam yi nga xam ne jaar nañ incha allah kon daal xam naa ne dafa xaw a gudd waaye am nañ yéenay dalal fi mbokk taalibe yi rawatina magi taalibe ñoom ci ñu sos liggéey bi lañ bokk ba ni ñu ànd ak ñoom liggéey bi. ngir jàngat lépp loo xam ne daal soxal na jamaatu añu bàyyi sa xam si bàyyi loo xam ne aju na ci biir daayira bi incha am na yéen jàng ci plateau yi kon xam naa ko ñoo ngi leen jox kon dig ndaje ci kanam tuuti incha allah ci plateau yooyu incha benn par benn ñu fa si ànd sëñ Cheikh Assane ak sëñ Fallou Irade incha allah wasalaamaaleykum wa barakaatuhu jërë ngeen jëf amaan mbégte kontaan bu baax a baax Euh, di ziarawaat ñëpp rek comme niñ ko waxee woon léegi nii si plateau bi mu mel ne sunu émission bi nga xam ne moom lañ fas yéene njëkk amal ñu dalal seen ndaw ñi nga xam si ñoom ñoo féete si jamaahatu Ahibahil Selassane ku mel ne Serigne Cheikh ak Xewal Ndiaye ak Serigne mbake Thian moom tamit moom la naan si plateau bi ñu fas yéene waxtaane li xam si mooy taxawaayu ndaw ñi eh, si liggéey bi ak ndaw ñi daka nan jàppee liggéey bi ak taxawaayu ndaw ñi xam naa balay boobu rek dañ leen jox ñu daal di présenté wu suñu présenté wu ba noppi rek ñu daal di dugg si laaj yi question yi ak tontu yi incha allah kon bu ko defee sëriñ Cheikh ñu ngi leen baax a baax di lay ziare. ah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen bu baax te di leen jaajëfal te sargal sargal ñëpp si bis bi te di ziar ñëpp si bis bi waaw xanaa day comme ni ko suñ sang bi waxee rek suñ Fallou Diop ñu ngi koy ziar bu baax di ziar suñu mbokk mi Serigne Thian ak Serigne Cheikh Mariam Ndiaye moom tamit di ziar mbooloo mi yëpp daal xam naa di gën a soññewaat rek ndax li ñu fi tax a toog moom ñun ñëpp xam nañ ko te ñun ñëpp li ñu fi tax a ñëw mooy lan liggéey sëñ daaru bi comme liggéey sëñ daaru bi moom ñun ñoo ko bokk te ñun ñi suñ ñi moom seen wàllu wéy na ñun ñi nga xam ñooy xale yi dañ jéem a takkaay suñu loxo saay rek gën a góorgóorluwaat gën a jàppaat bu baax liggéey bi comme que dañ fay ñëw moom te fekk suñu waajur te suñu waajur daanaka depuis ay at am na ñoo xam depuis 30 ans ñi ngi xam ne doom seen jarbaat ak seen sët dañ gën a góorgóorluwaat gën a takkaat suñu laxasaay gën a si ndaa ngay sotti te kenn ku ne yaa ngi a sotti si ndaa kon ñun nga xam ne daal suñ daaru am nan góorgóorlu bu baax suñ daal suñ daaru li jëm fees te kenn ku ne li ngay duy rek moom ngay am te leneen li ñuy demee feneen gëm jëm a góorgóor suñ daal suñ dër li mu fees moo ñu ko gën a yombal kon nag ñu ngi soññ waat baax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal génération am na ñoo xam ne ñoom mag am na ñoo xam ne maa am na ñoo xam ne ñoo tollee at dañ gën a góorgóor gaa si liggéey suñ dër bi gën a takkaat suñ loxo saay comme suñu waajur yi ñu fi nekkee te booba léegi tamit nañ jéem a góorgóorluwaat jël liggéey bi si ñoom kenn ku ne son ba nga nekk fexeel ba fekk ñi nga xam ne ñoo yore liggéey ba nga jëm leen a jege tey teg si tey teg si daayira ba tey teew tey xam programme na muy demee boo ko defee lépp lu ñu def da nga si mën a nga si mën a bokk kon daal ñu ngi soññiwaat bu baax mbooloo mi

Sénégal euh, traité ñu si bëri tamit ñi ngi fii waaye ñi ngi dem ak ñëw li ñu toog fii euh, bëreetut ndax tey jotu tey ñu soññiwaat ndaw ñu baax a baax ñu ñëw téye liggéey bi waaw comme ni nga ko waxee rek daanaka ko mag ñi moom seen wàllu wéy na ñun xale yi ñoo fi des kon nag kenn ku ne li ma waxoon léegi rek daare ba nga bokk jéem a góorgóorlu ba wane fa pësteef ak euh, farlu goo xam ne mag ñi danañ am xel mu rafet ak njortu si yow pour bar laa bàyyee bi ndax yaakaar na mag ñi moom duñ jékki-jékki rek ñëw jox kenn benn kaye kon nag ñun ñi nga xam ne ñooy xale yi nañuy jegewaat mag ñi tey dem si daayira bi bu demee si daayira bi am si góorgóorlu ak farlu bu yàggee mag ñi nee na am pësteef jox ñu da jox ñu kay bi ndax man mii yaakaar naa fa ma bokk dem daayira moo tax ma yaakaar naa ma ba isaan bi kay bi daanaka lu bari man maa koy diriger du sama njàmbaar woo rek di ma teg si yoon bu ma ñëwee sama nijaay teg ma si côté bi ne ma seex mën maa mën a ko jël kay bi boo ko defee ngay bind mais nag loolu lépp damay dem daayira di xam daayira may demee waaye nag bu fekkee doo dem daayira xamoo daayira bi na muy demee du la mën a jox ab dañ gën a góorgóorwaat bu baax comme nga sun mag ñoom seen wàllu wéy na ñun ñoo war a góorgóorwaat jëlaat le euh, ref bi gën a góorgóorlu gën a jàppaat si liggéey bi gën a amaat farlu bu baax baax boo ko defee mag ñi lan yoroon daan ñu ko mën a jox mu waat suñu loxo. ak sa xam naa man rogalaat ci laaj bi rek ndax euh, comme tout temps ki ñi ngi dem ci daayira yi di ànd ak suñu wayjur yi maanaam fan ngay soññee tamit wayjur yi maanaam ñi nga xam ne xëy na am na seen i tout temps te xëy na ne ay jubluwaay ndax koo xam ne sa tut tànk mi ngi fi sa doom mi ngi fi maanaam wala mën na sa a wala kilifa gi nekkal nan lay def maanaam ba yóbbu ko ci daayira bi ak nan lay def ba bi mooy waaw xanaa loolu tim di si gën a soññaat suñu waajur yi xanaa sax leen soññ parce que ñoom moom la leen la leen war ña nga fa ndax man ba ma a sama waajur bu yaa dem daayira day jàpp sama loxo ne ma kaas ñoom daayira ba daanaka léegi sax soññootuma man maay soññ sama bopp maay toog soññ samay rakk na leen kaas ñoom daayira moo tax waajur yi nga xam ne ñoo fi nekk ak seen doom képp koo xam ne ngay dem daayira del woo sa doom jàpp si loxoom ne ko sang bi mun la kàññam daayira daanaka bu yàggee da koy tàmmal boppam moom mooy dem bay soññ boppam sax kenn du ko soññ waaye nag bu fekkee da ngay dem bàyyi ba sa doom boo liggéey boo demal bàyyi ko fa moom xam luy daayira ndax daayira moom dañ koy tàmmal nit mu tàmm ko kon nag képp koo xam ne waajur nga te yor sa doom booy dem daayira bol ko fi bàyyi del jàpp ne ko sang bi mun laa ngeen kàññam daayira jare sax nga ne ko ñu anaka kàññam daayira daanaka yàggul sax nan dem rek boo demee da ngay ñëwaat bu yàggee day dem ba nga xam ne moom mooy taamal boppam dem daayira yow doo ko soññeeti xam naa foofu daal képp koo xam ne waajur nga daal ñu ngi si soññewaat bu baax a baax a baax bu saa yooyu dem daayira jàppal sa boo ko defee moom boo liggéey dina taamal boppam dem daayira jërëjëf xam naa ma yeggale beneen laaj bi sax ndax euh, ku ci mel ne yow mi yaa ngi dem ci daayira bi di di di teg comme ni ñu ko mën a xamee parce que man mii it maa ngi ci jëm a góorgóorlu xëy na xew naa ci néew doole lool waaye maa nga ca maanaam jëmmi relève bi nga xam ne xëy na sunu wajur ñu koy faral di wax ak ñun tuutàngi des fois sax mu rëcc ci sunu lamiñ ñu di ko wax naan dañoo war a jël relève bi ci ci sunu kilifa yi maanaam relève maanaam yow jàpp ne maam noonu nga moom teg taxul nga mën a jël relève faaw nga xam maanaam fooy teg tànk loolu nag maanaam nan lañ yow nan nga mën a ba mënoon conseil man nan nga may conseil pour ma dem maanaam jël relève benn bànqaas si bu bokk ci daayira bi maanaam ngir mën ko doxal waaw loolu de liggéey li tax moom xale di ko man moom daanaka da ngay ñëw rek bokk si liggéey bi ba bokk si liggéey bi jéem a xam liggéey bi na mi doxee ak ne lañ koy defee di topp si ginaaw mag ñi lépp loo xam ne ña nga sa nga góorgóorlu sa kéemtulaay kàttan bu nee daara la boo ñëwee daara bañ a nekk sa téléphone di xam parce que problème mooy bari na si xale yoo xam ne bu ñëwee daara tamit daanaka li si ëpp seen téléphone la ñu sëgg fi mu toll mën nañu ñëw daara ba génnaat lañ def sa wax sa daara doo ko xam te loolu yaakaar naa bëriwul bëriwul njëriñ loolu moom daanaka bu moo moo ki nga xam ne day toog këram rek du dem daayira ñoo yem képp koo xam daal da ngay dem daayira da ngay góorgóorlu boo àggee sa daayira ba boo tegee ba pare ngay teewlu waxtaan ko da xam ne programme na muy demee boo ko defee yow mii bu ëllëgee kët buñ la bëggee jox daayira ba da xam yow fa nga nga teg sa tànk waaye nag bu fekkee da ñëw moom moo ku ñëwul ñooyam kooku moom daanaka boo léegi bu la joxee buñ la joxee kayit daayira doo xam fooy taxaw kon nag nañ si bàyyiwaat xel bu baax bu ñëwee daayira nañuy teewlu tey xam lan fay wax boo liggéey yow da nga xam fa ngay teg sa tànk ba boo liggéey bu la joxee carnet daanaka explication yi la war expliquer sax daanaka du bari yow daanaka lu bari xamoon nga ko jaa kon nag nañ si gën a góorgóorlu baax a baax si loolu bu ñu demee daara ñu si bàyyi xel jërëjëf sëñ Cheikh xam naa fi ni tëjee sunu waxtaan ak yow rek mooy que nga ñëw si tuuti si daaray kaamil yi ndax kenn du dalal sëñ Cheikh te waxoo si daaray kaamil ji nga xam ni am nga ko si liggéey boo xam ne liggéey bu am solo ñu ngi koy liggéey sëñ Daaru Sane ak njabootam xam naa foofu rek da ngay ñëw nga résumé ñu rek daaray kaamil la moo tax ngeen sos ko ak nan lay demee ak nan lay doxee te ñëwal ñu tamit si ab tënk bu ndaw rek xamal ñu ne daayira yi su tel lay am bu ko defee ñi dëkk foofa moo xam la 15 samedi bi njëkk si la 15 dañuy amal daayira bi wala samedi bu mujj si weer wi nañu amal daayira wala samedi bi si digg daayira bi moom nañuy amal ndaje yi xam si mooy ndaje Sëñ Daaru Sani nga daan ñu koy boole ak li nga xam si ni mooy jàng kaamil bi rek ak daaray kaamil ji woote waale defalaa ñu si ab appel bu ko defee tamit mboolem ndaw ñi xam ne xëy na ñu ngi dégg suñu kàddu te nekk fii si Italie si bitim réew ñu mën a ñëw tamit bokk ak ñun si daaray kaamil bi nga ñëwoo ñun foofu rek Sëriñ Cheikh waaw xam naa di ñëwaat rek daara kaamil moom daanaka yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi fi rek mu nekk ndaw xam nga ko ndax ban koy sos moom daanaka ñun kenn ku jox la kaamil nga koy jàng par ñaari semaine ba ñaari semaine lay am te ñaari semaine yaakaar naa kenn ku ne am nga temps jàng ko kon nag képp koo xam ne yorugoo si jukki fi ndool si benn kaamil la nekk te ndaw i fi nekk bari na kenn ku ne war ngaa mën a ñi nga xam ne ñi ngi fi te amuñ yoruñu jukki dañ ñëwaat bu ko defee ñu amaat beneen kaamil muy ñaar ba ñett sax ndax xale yi nañ fi te ñu mën a jàng bari na kon nag benn kaamil bi boo xawee sax tun na si man sama xalaat bu gàtt tun na képp koo xam ne nekkoo fi bokkoo si kaamil bi ñu ngi lay soññiwaat nga ñëw bokk si boo ko defee ñu amaat beneen kaamil amaat yeneen ñaar ba ñett sax ko defee mbir mi day gën lépp si liggéey suñu daaru bi lay bokk képp koo xamante bi yor jukki ñu lay soññiwaat bu baax a baax nga gën see farluwaat xañ ne sax ñu ngi dox waaye nag ñu ngi gën a soññiwaat bu baax nga gën see dox ndax daaray kaamil moom daanaka jàngub kaamil rek lañ siy def

ñaari semaine yi jot ndax kaamil bi ñaari semaine bi la kon nag képp koo xam ne bokkoo si ñu ngi lay ñaan ak di la dagaan nga ñëw bokk si kaamil bi taxaw si comme niñ ko nit ñi liggéey comme niñ koy jàppale ñun ñi ndax kaamil bi moom yomb na niñ koy defee ñëpp xam nañ ko mooy leen commencé na ba commencé nga jàng sa jukki ba sa jukki pare nga dugal après bu pare ñu tëj ba beneen yoon kon nag ñu ngi soññuwaat bu baax a baax daayira bi tamit li ma waxoon léegi rek ñu ngi soññuwaat ñëpp si daayira yi kenn ku ne nekk moo xam ñu nekk Lecco moo xam ñu nekk Bergamo moo xam ñu nekk Toscana moo ñu xam ñu nekk Treviso moo xam ñu nekk Rimini moo xam ñu nekk Italie gépp daal képp koo xam ne am nga fa nga bokk fa nga dégg am na section bu fa nekk foo xam ne fa la ñuy liggéey Sëñ Daaru yow jéem la bokk sa waa daara boobu fan bokk daanaka si si ëpp daara yëpp la 15 lañ def après la 15 chaque mois la 15 te loolu yaakaar naa war naa neex boo bokkee sa groupe ba sax ndax daara bu ne fii am na groupe ba nga xam ne da ngay bokk seeni communication fa lañ koy jàllale boo fa bokkee la fay xew war nga mën a xam kon nag liggéey bi mooy kenn ku ne fa nga nekk nga jéem a bokk fa fa daayira boobu di dem di teew tey teg bu ko defee programme la muy xam la muy demee da ko mën a xam xañ sax ñi ngi dox waaye nag nañ gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ndax moom fas lu mu daw daw du teew ñu làbbali ko xam naa ñu ngi jaajëfal ñëpp tey sant ñëpp da xam naa lépp lu fi dëng na nga xam ne suñu jëmm ji la waaye lépp fi jub ñu sant ak suñu borom di leen soññuwaat bu baax a baax si daara bi di leen baax a baax jërëjëf sëriñ Cheikh a baax si daara bi jërëjëf sëriñ Cheikh di soññuwaat mbooleem koo rek te nekk bi ñu ngi lay baax a baax a góorgóorlu si daara bu baax a baax a euh, ko defee rek xam naa dañuy dalal sëriñ Mbacke Thian moom tamit a boobu ndaka la taxawee ak nan la mel ak si ndakkal la kuréel bi di doxee. waaw oh, asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk jullit bokk taalibe mu ngi nuyu ñëpp dañu leen jégalu di gisee si nuyu bi ak sant gi Cheikh Mountakha Bachir di suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak di ñaanal Cheikh Abdoul Khadar moom sëñ Ousmane moom suñu dara asan mi toog jotaay suñu dara asan suñu borom yàggal ko fi lool te ak wér di nuyu baax sama bokk yi mu seqal plateau bi sëñ Fallou Irada ak sëñ Cheikh Assane. ak sa Cheikh Ndiaye xewal ah, di leen nuyu bu baax di rafet lu baax jataay bi ak di ah, am mbégte bu baax si bis bi tey ndax ñun amuñu lu dul suñu Darou Assane amuñu gën a kawe suñu Darou Assane waaw comme noonu nga ko waxee ci kuréelu xasida gi nga xam ne di ëpp ci ndaw yi nekk fii ci tubaa Italie ñoo ko seq mu nekk kuréelub sélection ah, kuréelub sélection ku ko wax mel na ne dangay naan gox yi wute na ndax am nañu dëkk ba toskaana am ñu dëkk ba fii di Treviso am ñu dëkk ba. Brescia kon loolu boo ko nattee dana nekk ay jataa yoo xam ne ay kilomètres kilomètres yu bari la ñu gis na kenn ku nekk dëkk ba nga nekk yaa ngi fay góorgóorlu jëm ci wàllum kuréelu xasida ndax kuréelu xasida jamono ji mel na daa nekk phénomène comme que daa nekk phénomène nag ndaw yu bari mel na lu si soobu jublu si ñun nag ñoo xam ne suñu dara sax lañu yàlla lañu yàlla séddee lu mën a xewit moom lañ delloo njukkal luñ ci amit moom lañ koy jox amoon nañu yéen a am na yéen a loolu ci maanaam bépp boo xam ne kuréel mawlud bu yëkkati xasida la ngir jëm yàlla ak sëñ Tuubaa kuréelu sélection gi àgg fa ndax it am na ci yaakaar ndax it su juumut ay jamono 2004 2003 sëñ Fallou su ma juumut ba ahibaay di ahibaay yi amoon nañu kuréelu sëñ Daara Assane ñu ko daan répété ca Gede ca Daara ña kuréel boobu defe naa bokk naa ci ba su ma juumut am na mag goo xam ne ba seen faa yëngu loolu nag moo dox mel na moo dox ba àgg loolu daal moo waroon kuréelu sélection bi ñu si nam nam di ci góor góorul lu jiit bis bii di it am na jotaay yu ñu si yokkoon amoon nañ mébét it xasida gi xam ne suñu daara san moom la fi bàyyi bind ko amoon nañ mébét ay yéene lool ngir jàng ko waaw ngir jàng ko ci ay daaj yu baax daaj yoo xam ne eh, daaj yu cosaan lay doon ngir ngir ngir njukkoyle ko suñu daara san waaw loolu daal moo waraloon eh, kuréelu sélection gi maanaam mbokki taalib bi nekk fépp ànd doon benn daal ngir jéem a doxal liggéey boobu ak eh, li nga xam ne daal weesu liggéeyal yàlla rek ak yonent bi Sëñ Tuubaa. Hmm, xam naa nu ngi lay ziar bu baax a baax di am ay laaj rek lu jëm ci jëmmi kuréel gi xam nga euh, kuréel sélection boo ko waxee ko waxi tasaaroo na te ital lañ ne xëy na comme ni ko waxee rek fu ne waaye nekk na fa képp kuy tuddoo ci waa waa Kër Sëñ rek xëy na tey nga yëngu ci ci xasida yi ñoo ngi lay xaar foofu noonu maanam euh, yen kuréel gi comme te ku ne kuréel kuréel njàngu xasida ku ne liñ ko ñi ko baaxoo xamee ci jamonoy doxee répétition yi day am xëy na muy ci teew muy xaw ma ban ban jumtukaay ngeen di jëfandikoo pour répéter ak euh, xëy na kuréel nu mu tëddee bu fekkee xëy na yàlla dogal na fàttaliku nga ko ban jamono la tëdd ak nan la tëddee maanaam euh, jëwriñ jaak xëy na maanaam jëmmi kuréel gi daal maanaam looñu ci mën a indil waaw loolu Cheikh Assane pour ñu toll si dana yomb ndax euh, comme ni ma ko waxee rek lu jiit kenn ku nekk gox ba nga nekk yaa ngi koy yëngu ci wàllum xasida kon loolu dana yomb ñun ni ñuy répété mooy wala ni ñuy tënkee mooy dañuy ne ci groupe bi lépp loo xam ne daaj bii xam ne moo leen bëgg a jël ngir jàng ko ci xasida yi jëwriñ ñi joxe loolu ñu mànkoo si jëm ci loolu ndax doona yomb mooy kenn ku nekk fa nga nekk yaa ngi fay doxal liggéey bi mel noonu ñun sélection lay def rek bu ñëwee foofu day tënk rek répétition yi nag moom am nañ ci yàlla dana ci dimbali ban ci kanam tuuti jëm ko doxal ku si mel na jëwriñ jëwriñ eh, eh, kuréel gi mel na ne yow Cheikh Assane mi ak seen Lamine Bara Diom mi ak seexu Cheikhouna bu lekko defe naa ñooñu jëriñu liggéey bi waaw ñooñ daal ñooy ñooy seetu liggéey bi liggéey bi nag mën naa luy doog a door la dañoo bëgg daal ba ci kanam eh, tuuti daal ñu am ay jataay wala mu gën a mu gën a mu gën méngoo ak jamono waaw ndax mel na ne eh, kuréelu sélection boo ko waxee moom da ngay tànn ñaa xam ne jàpp nga ne ñoo tane nga dugal leen sa biir waaw loolu daal mooy mooy mooy mooy mooy yëngu-yëngu bi. jërëjëf uh, Serigne Mbacke jërëjëf Serigne Cheikh jërëjëf Serigne Cheikhouna si waxtaan wu am solo woo xam si ni sekkoon nañ ko jëwriñ Serigne Cheikh xewal waaye tamit sekk kook uh, Serigne Mbacke Ndiaye uh, ci taxawaay yu solo kii soññee si wàllu liggéey bi di wàllu boo xam si ni rek ay ndaw la te nekk si biir dëkk bi ñu ngi leen woo fu di nekk rek lii di liggéey bi daara kaamil waaye lii di liggéey boo xam ne ay ndaw la yoo xam ne ñoo ko fas yéene bokk ngir taawuwaat ay jamaatu ahibaay salaam loolu na dañuy jaajëfal suñu a baax a baax nañ ko indi nañ ñu si réew mi léegi nag li si des mooy ñun nañ ñoo war a nan na fexe ba liggéeyal sëriñ Daaru Assane rawaayte war jaarale ko ci bunt bi xam si mooy jamaaxat wax yi bàyyi sëriñ Mbàkke waxee léegi rek moom lay demee kon koo xam si yaa ngi fi nekk di yëngu si kuréel moo xam nga taalibab sëriñ Daaru Assane ñi ngi lay woo bu baax a baax a baax ci liggéey bi nga xam si moom lañ fas yéene liggéey sëriñ Daaru Assane ndax jàpp naa ne kuréel bi ñaan na yàlla dem ba ay jëmi jamono bu yàlla suñu borom santal dogalee ñu bëri tawanoo Sénégal ñi dem jàngal xalifa bi fi nekk moo xam muy sëriñ Abdou Xaadir Njaay di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tamay ko wér wala jàngal sax njabootu Darou Assane waaye dem ba si jàng li nga xam si ne mooy eh, si màggalu ko Serigne Darou di war a dëppoo ak le allah ñuy waaj tamit bis bu am solo di eh, eh, centenaire Serigne Darou Assane mooy bi xam si moom la Serigne Darou Assane am téeméeri suuf di Touba Ndiaye waaye centenaire mooy war ñu ko baax kon mbokk yi ngi leen di joxaat dig daje ci beneen plateau wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.